yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadim irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jàll al xawaadim irham jamii al waraa. Auzu billaahi samiil aliim mina shaytaani rajiim. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama taslima asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di ànd eh, bisu xasaayit bi nga xam ne mooy bi ñu amal ci Italie at mu jot te ren jii di fukki édition ak juróom ñu ànd ceeg yéen nag commission culturelle bi ànd ko ki borom xam-xam ngir ñu war a ànd jàngat li nga xam ne mooy bisu xasida yi ak yar njariñ lañ ci mën a jëlee ak luñ mën a jàngate bis bi ndax ni ma ko waxee rek bisu xasida du caagee ni rek dañuy toog jàng rek waaye dañ ciy jàngalee kan mooy sëñ Tuubaa ak lan la bëggoon ak lan mooy lislaam di ci jàngale thèmes wuute yoo xam ne képp ku fi ñëw da nga mën a jariñoo ci thèmes yooyu ba déwén ak jàmm incha allah ñu toogoon nag boroom xam-xam boo xam ne kenn umpale ko muy sëñ Nabi Gathie nekk Touba ngooña jiite commission culturelle ba nga xam ne moo fa nekk di koo xam ne ñëpp xam-xam xamam muy ku ku sell ku bëgg sëñ Touba waaye kuy liggéey lislaam nag ci xam-xamam ndax bi mu jàngee ba jeexal bi mu ñëwee dafa ànd ak ñun liggéey bi lépp loo xam ne laaj na ko rek dana ko def. diit koo xam ne ku gëstu sëñ la ku ko xamit nag ñu bëgg waxtaan ak moom nag ci sëñ ak alxuraan muy thème boo xam ne bu mu xam la ndax jàpp naa ne kuy waxal sëñ Touba wala nga koy wutal bis la ca war a jiitu mooy nga waxtaanee alxuraanu karim ndax malakanil quraan tamlikul yaddum jooj waxoon yàlla moom loo na ma alxuraan moom goo xam ne gu sax dàkk la kon kooku dana jaado dana yey ñu waxtaane ci moom ndax alxuraanu karim xam ngeen ne téereb yàlla la di waxu yàlla waxu yàlla nag dafay laaj jullit bi saa su nekk mu di ko jàngat waaye di ko xam di ko jëfe ndax mboolem digale suñu borom yi mi ngi ci alxuraanu karim waaye tere yi mi ngi ci biir alxuraanu karim waaye dël yim dël nit ñi ci bu jëfee ndigalam mi ngi ci alxuraan waaye tëkkoo yim tëkkoo mi ngi ci biir alxuraan mbooleem doxanu saxaaba yi ak li nga xam ne moo di yonente yi ak gaa ñu baax ñi ñoo ñëpp seen doxin ak seen jaajaar mi ngi ci biir alxuraanu karim siira mi ngi ci nga xam ne li ci suñu jublu rek bëgg ñu koy jàng di ko nafar waaye di ci roy di ci fàttalikoo loolu nag nan la ko sëñ Tuubaa defe woon nan la sàmme woon alxuraan nan la ko bëggee woon kon loolu lañ jox sëñ nabi mu dikkaluñ ci sëñ Tuubaa ak alxuraan kon sëñ nabi tafadal mashkura alhamdulillahi rabbil alamin alxaayil fi muhkimi kitaabil majid law anzalna haazal qur'aan ala jabalin la ra'aytu xaasi'an mutasaddian min xasiyatillah wa tilka al amsaalu nadribuha linnaasi la'allahum yatafakkaruun wasalaatu wasalaamu ala al aadil amiin sayyidina muhammad sayyidil awwaliina wal aaxiriin wa ala aalihi wa ashaabihi wa asnal xadiimihi wa man daa bi daawati wa sanna bi sunnati ila yawmi din subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim ixwatal musaahidoon wal musaahidaat nu xayikum fi haadihi al jilsa al karima tayiba al mubaaraka xaailan lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa fi muqaddimati haadihi tahiya at tayiba al aatira cheikh muntaxa mbàkke ibnu cheikh mamadul basirul mbàkke alxalifatul am li taifatul muridiya ataalallahu umrahu wa baqaahu bi jaahi man loolu jaaw indallahi euh, bokk jullit bokk ñuy seetaan yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen siyaare ci bés bu màgg bi euh, di bésub xasaayit boo xam ne moom la ñuy defal sayxul xadim alay waa Italie di ko def ànd ko mboolem bokk jullit yi nekk ci àddina bi yëpp nit ñi jógee ci gox yi fasanti ñëw teewi bés bi muy bés bu am solo waaye kon ñi nuyu jawriñ ji nga xam ne muy sëñ Sam Diop mi nga xam ne moo ko jiite waaye ànd ceeg sëñ Saliou Ndiaye mi nga xam ne moo ñu dalal nii te yor commission culturelle bi tey bot di borom xam-xam boo xam ne ci daara Touba Zingonia ràññee nañ ko fa lool ci wàllu njàngal meeg yëpp waaye itam jiite fédération Mame Cheikh Ibrahima Fall bi ñu ngi ko nuyu baax di ko tatagal di ko ziare bu baax baax a baax di ko ndokkeel ci bés bi waaye itam di nuyu waa rajo xasaayit Kamal mi nga xam ne suñ xarit la suñ soppale moom itam ñu ngi koy nuyu baax di ko ziare ziare mboolem mbokki taalibe yëpp. Euh, kon sëñ Saliou euh, ni nga ko waxee rek euh, bun na sëriñ Touba ak alxuraan xam nga alxuraanul karim mooy wax yàlla subhaanahu wa taala borom bi tabaaraka wa taala dafa wax ci alxuraan ne qul anzalu bi ilmihi maanaam alxuraan yàlla nga ko wàcc ci xam-xamam moo tax ñu naan alxuraan azali la. ndax kenn mënu koo tàqalik jëmi borom bi tabaraka wa taala mu waxaat ne tanzilun min rabbil alamin alxuraan jooju nag suñ borom bi tabaraka wa taala ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne alhamdulilahi allazi anzala ala abdihi alkitaaba waxaat ne tabaraka allazi nazala alfurqana ala abdihi li yakuna lil alamina nasira daal di ne nag ci jibril la ko jaarale mun na yonente bi nazala bi ruuxul amin ala xalbika li takkune min al munzirin bi lisaanin arabiyin mubiin alxuraan jooju nag moom la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne mooy moo mucjisaam bi gën a mag ndax li ko waral te itam alxuraan dafa am ñaari mbir yoo xam ne alxuraan da bokk ne ci benn mbir boo xam ne alxuraan moo koy wane maanaam nekku yàlla subhaanahu wa xam nga yàlla bëti suñ bët yi bëti zaahir yi mënu koo gis moo tax bokk na ci liy tegtal na yàlla am na mooy waxam jii di moo tax dégg mën a xul anzalo bi ilmihi waxaat ne tanzilu min rabbil alamin waaye itim ñaareel tegte bi li wane na yàlla am na mooy l'univers bi addina bi ñu wër jëfe yàlla la alxuraan waxam la addina bi di jëfam ak mbindeef yi li ci nekk lépp di jëfam yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee nag moom dafa tànn ne alxuraan mooy mojise bi nga xam ne mooy mojise bi nga xam ne moom ci mboolem mojisaat yëpp moom la tànn ndax dafa wax ne mojise yi jiitu woon yëpp mooy Euh, doxloo na garab ga waxloo na mbëtt ma wala xar na weeroo neen yooyu yëpp mojisa la yoo xam ne mojisa maddiye la dafa wéy ànd ak jamono waaye nag ndax tey boo doon laaj ab ab jullit na ko ndax loolu ñuy nettali ci histoire ci yonent bi alayhi salaam ndax lu wiroon la dalay wax rek ne man fekkewuma ko waaye gëm naa ko waaye nag moo tax yonent bi alayhi salaam ne mboole mojisa yi yëpp baax na waaye nag man bi ma tànn mooy téere bi ñuy jàng mooy alxuraanul karim alxuraan jooju nag yàllaa ko garanti wax ci alxuraan yi inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu laafisoon sëriñ tubaa nag moom ñëw doon yonente bi alayhi salaam wasalaam ci zahir ak ci baatin bi mu ñëwee nag taxawaayam ci alxuraan xam nañ ne sëriñ bi bi muy ñëw ci Sénégal bi muy feeñ ci zahir gis nañ ne boobu nit ñaa ngi doon jàng alxuraan waaye nag dayo alxuraan dayo bañ ko war a jox dëgg dëgg dëgg dëgg joxuñ ko ko woon xam nañ bu baax ci ñoo xam ne dañ daan def xeeti laawaan yi yàgg nañ koo dégg nga xam ne ay kaang fóori lañ woon yoo xam ne ñu man alxuraan ñoo xam ne dañ daan dem ci ngént yi wala ci e, céet yi di fa jàng ay saari alxuraan yoo xam ne ngir ñi di leen tey jox dara sëriñ bi nag comme moom moom la yàlla doon loo alxuraan te yàlla loolu da ko wax ci alxuraan boo demee ci suratul faatiri dafa wax ne su ma awrasnal kitaaba lazina stafayna min ibadina yàlla nee na am na ci sama jaam ñoo xam ne maa leen tànn doon loo leen alxuraanul karim sëñ tubaa nag ne ñooñu yàlla tànn doon na lu leen alxuraan karim man ca laa bokk daan na awrasani llaahu kitaaballahi wa jumlatul kut bi isbillaahi léegi ni bi mu waxee ne loolu nag na yàlla doon na loon ak alxuraan waaye du alxuraan waaye mboolem téere yi wàcceen ci yonent yëpp la yàlla boole doon na loo moom yón moom sëñ tubaa radiallahu anhu mu waxaat ne nag ne alxuraan jooju nag waxan wax nga ko léegi malakanil quraana tamlikan ya doomu na suñ boroom da ko moom alxuraan wax na ci fànn yu bari lii firnde nag ne da ko moom la alxuraan loolu sëñ bi bi mu ko waxee tim waaye da ko wane. bokk na ci wane ji rek mooy li ñu doon junj léegi mooy bi mu ñëwee fekk nit ñi jàng alxuraan te gis na ne cër ba ñu ko war a jox dëgg-dëgg joxuñ ko ko ca taxawaay yi ñu taxaw mu li mu njëkk def mooy xeex loolu. fexe bi nga ñi nga xam ne ñoom dañoo mokkal alxuraan te daan taxawaalu ci ngént yi baa ci céet yi di def ay laawaan nga xam ne saar yooyu nga xam ne lu mel ni wal aadiyaati dabbaan fal mooriyaat xadan yooyu nga xam ne tey boo ca boolee tama boo moytu ku munti téye sa bopp da nga dem léegi nag yooyu lañ daan def léegi nag pour mu xeex ko nag mu commencé nag xam na ne xaalis rek lañ soxla mu commencé ko boo bindee kaamil jox ko mu jox la alal ju bëri yàgg ngaa dégg nga dégg nga diggante moog sëñ Ndiass Cissé sëñ Ndiass Cissé mi nga xam ne nee na bu daan bind kaamil moom ñetti dërëmi ngor la ko daan la ko daan jaayee te daa daan wër di ko jaay di ci lu ne Euh, sëñ Abdoulaye Cissé mii ab sëtam nettali na ma na sëñ Ndiass Cissé bi muy ñëw ci sëñ Touba nee na boobu ñëwutoon maanaam pour jébbal si waaye da doon wan sëñ bi fi mu àgg ci alxuraan waaye ci gàttal rek bi mu ñëwee ci sëñ bi sëñ bi ne ko Ndiass day dégg nañu ko mën alxuraan nga waaye tëril ma bàqara mu tëri ko mu mu ne ko Ali Imran mu tëri ko mu ne ko mu ne ko nissaa yi mu tëri ko mu teg ci Maayida ba mu ko tëree bàggee la ne ko Ndiass day li nit ñi wax dëgg la ku mën alxuraan nga ku rafet la nga. waaye nag alquranu wala addis wa manaafiu daaree ni lii alquran ak addis ak njëriñal àddina alaxir fii la ko suñ borom bi tabaaraka wa taala teg sama loxo bi loolu da doon wane ne doon gi mu doon yonente bi alayhi salaatu salaam léegi nag daan ko nag boo daan bind téere boo daan bind kaamil ñaata nga koy kii mu ne ko daal ñetti dërëm yi ngurdu ci gàttal rek mu ne ko fare ya nga dëkk koo ca xam mu ne sëñ Massamba Diop Sam mu daal di sëñ bi daal di jël kayit bind ci ne sëñ Massamba Diop Sam na teral kaamil waaye ba mu demee ci niñ ko nettalee ci histoire sëñ Massamba Diop Samb ba mu gisee kayit yi moom daa jël ñetti téeméeri dërëmi ngóor la jox ko nee nañ jëlaat na ñaar téeméeri dërëmi ngóor teg ci na ko yow mi tax sañ tubaa ndigal jógee sëñ Touba ñëw ci man maa la neexalee lii. ba pare nag delloo ko kaamilam daana ko nag kayit wi man daa di téye kayit wa loolee nag foofu nag dafa am lu luñ ci war a leeral mooy kayit wi kaamil bi mu ko delloo te tee kayit wi sëñ Touba day jëmmi alxuraan xam nga euh, maam El Hadj Abdoulaye Niass bi muy tagg sëñ te sëñ Tuubaa joxoon ko tafsiru jëlaalee ni ba mu koy tagg te bàyyi xalifa mii doomam nga xam ne la moom la ko wayloo daf na ko huwa dafa wax ne sëñ Tuubaa ne huwa jëlaalaani tafsirun li mansibikum misbaahu ilmin ka daw i subhi lamaahi na koy sëñ Tuubaa jëmmi alxuraan jun tafsir juy dox ci kaw suuf mooy mooy sa jëmm ci misbaahu ilmin yow làmpop xam-xam nga yaa ngi mel ni maanaam maanaam leerug suba nuy suba si gën di yokkee rek muy leer yow noonu nga mel léegi nag ba mu ko joxe loolu bi mu jëlsee sëñ tubaa nag nett li sëñ tubaa sëñ tubaa nag xanaa amoo sikki sàkk la ma la doon wax ne alxuraan maa ko doon <laughs> moom loolu xam nga leer nañ waaye sëñ bi yemul moom sëñ bi gis nga bi mu demee gànnaar naari gànnaar bi ñu xamee ne sëñ tubaa mii ku bind kaamil jox ko naari dañ ne tereet taxaw na am na benn naari gànnaar boo xam ne day sëñ Saliou day melal ni sëñ tubaa doon def ci alxuraan ji ak alaaj ji joxe mooy ahmad ibnu zeyd al asani lañ koy wax daf ne daal ma in ubali isa ma dana zomali hanni bi bi xattil ujratal Mustafa eh, Ali a xawsul wara xayyan yu bajjiloo xaq na wa yublisi fii maali mu ne daal eh, faalituma borom alal yi yi nga xam ne dañoo am dañoo yor seen alal te nanguñ koo def ci alxuraan ji maadaama xawsul wara la wax li fekk ki nga xam ne mooy xëcc li bind bi yu bajjiloo xaqan wa yublisi fii xaaliyal maali day yëkkati alxuraan di ko teral waaye di def alalam mu dem ba jeexal bi nag mu ne nag li ko yéem mooy. ka annama aaxiruhul maaquus awaluhu mimma yulaaqihi min ubbin wa iqbalin nee na li ko yëm mooy sëñ Tuubaa fi kulli yawmin tuwaafa alfu manzilo tuuta amsal min baadi amsal nee na bu nee na bis bu jot lu mat junni nit ñooy rang kenn ku ne dindeb kaamil mais moom nee na li ko yéem mooy ka annama aaxirul maaquus awaluhu mimma yulaaqihi min ubbin wa iqbalin nee na kaamil bi ñu koy njëkk a jox suuf gi bu koy nangu dajey def alal waaye kaamil bi mu mujj nangu ci ngoon gi nee na bu koy nangu doo ci xam ban la ci gën a bégee xam bu doon suñ classe gi léeg-léeg nga bi poste bi widd nga ne <laughs> waaye nee na moom liggéey loolu moo ko loolu moo ko yëm mu ne nag karaama gii nag nee na amul kenn kenn kenn kenn kenn koo xam ne borom jamono nga woon wala nitu yàlla boo xam ne mas na làq karaama gu ni mel waaye sëñ Saliou sëñ Touba ci wane ne doon gi mu doon alxuraan gis nañ ne xise boobu yàgg yàgg nañu koy dégg Ahmadou Fall alxuraan ci jox gi mu ko jox alxuraan loolu day wane ne kon daf doon na alxu moom moom alxuraan wane wane loolu tegtal la ci. gannaaw bi bi ñu wanee ne def na ci alalam waaye ci sol alxuraan nit muy Ahmadou Fall alxuraan xisi boobu ñëpp yàgg nañu ko dégg nga xam ne nettali na sax sëñ Coy bi Mbàkke xam ne sëñ bi da ko sol alxuraan waaye euh, naari gànnaar yi nga xam ne dañoo jàppoon ne alxuraan ñoo ko gën a mën ñëpp am na ci benn xeet woo xam ne mooy usratu ul faaxoomar al yàqoo bi ñu mënoon alxuraan lañ waaye euh, biñ bindee kaamil di ko indil sëriñ bi ba mu ñëwee jox kaamil sëñ bi sëñ bi dafa téye kaamil bi euh, tekk ci dënnam bu tedd boobu nga xam ne moom la Cheikh Abdoulaye Salim ibnu al Hasan al Anbali di melal nan law baaxa bi sirri abdalil waraai ajaban lakinnama sadro xabron lil asrar nee na daal dënnam bu tedd boobu mooy secret yi su fekkoon ne am nañ bàmmeel nga xam ne dënnam sëñ Tuubaa boobu mooy seen bàmmeel nee na sëñ Tuubaa feeñul dara nee na bu feeñuloon li ñuy yéemu ci moom lépp ñun nee na dara la feeñut law baaxa bi sirri la wax abdalil waraai ajaban lakinnama sadro xabron lil asrar xam nga kon da ngay dégg ba muy ca Mbàkke Kajoor la ma waxoon law alima naas maahuna teg ci dënnam boobu nga xam ne la badro ila talibi loolu nag moom la Cheikh Abdoulaye Salim di junj léegi nag usrat at faaxumat al yaqub bi ñu ko joxee kaamil bi sëñ bi nag sa kaamil bi am na lu may jàmbat maanaam sa kaamil bi am na lu ci nekk waaye kooku tam ñu mën alxuraan ndax xam nga sëñ bi bi mu fekkee gànnaar man alxuraan ndax àggoon nañ ci alxuraan foo xam ne boo leen joxe kaamil dañuy commencé bàqara ba minal jinnati wan naas maanaam boo ci bàyyi genn sàdd wala benn tomb ñun la yàq nga ko kon ñooñu mën nañu alxuraan sëñ bi nag dafa ñëw wan leen geneen beneen domaine boo xam ne bokkut bi ñu xamoon mooy boo ko joxee kaamil yaar lay def day yaar mu julli ñaar ràkk na la sa kaamil bii am na lu ci ne walla mu tekki ci dënam bu tedd boobu na la sa kaamil bi am na lu ci nekk ñooñu nag sëñ bi dana leen day bi mu na leen seen kaamil bi am na lu ci nekk ñooñu tam ñu mën alxuraan la mooy wóolu do a faaxomal al yàqub dafa wax ne ndax Euh, fala ma nëssoo ma zukkiroo ji ndax damaa fàtte sàdd ga nga ca kaaf ga waaye sëñ Saliou foofu li ci yéeme xam nga fala ma nëssoo ma daa ñëw ñaar yoon ci alxuraan fala ma nëssoo ma zukkiroo bi fatana alim abwaaba kullu seyin ma nga ca sootu lana am waaye fala ma nëssoo ma zukkiroo bi an jay naa lazina yanaaw naa ani sooy ma nga ca sootu laaraaf waaye xam nga li yéeme ci sëñ bi sëñ bi kaamil bi ci boppam bu noonu la da nga cee juum boo ko ubbee boo ne gay kaamil bi fi nga juum foofu foofu foofu mooy feeñ ci xadu ngay tombe loolu mën mooy li ma yéem man ndax fa la maa na suma zikr comme ñëw na ñaari yoon ci alxuraan moom gis nga bi mu juum bi bi nekk la am la fàtte def sàdd gi ju kaw te biñ ko bi sëñ bi ubbee rek te foofu la ci xët moom la toll te xam nga sëñ bi def na ko ay yoon yoon def na ko ay yoon yoon euh, xam nga diggante dégg nga diggante mook euh, sëñ Masamba Diop Samb loolu xew na ci damay damay bañ a guddal euh, xewoon na ci diggante moom waaye diggante sëñ Maxtar Bintaloo sëñ Maxtar Bintaloo moom tim ba nga xamee ne dem na ci bokk yooyu nga xam ne euh, suñuy mbokk loo xam ne bokkuñ ci yoon wi te doon wax na day murid yi day dafa mel ni ne maanaam lañ nar a am ëllëg àllaaxira dañ ko far lekk fi mooy bi nga xamee ne njaareem euh, maanaam xéewal ga bëri na fa nga xam ne si moom la mu jëm wax na ci Nubdatul Mubaarak ne booba ci njaareem maanaam diggante yàpp ak meew meek maanaam addi yi wàcc saako mbisaaw yi xéewal yi bitéel laj ko la ñi nga xam ne àggoon nañ sax di tuuroo bitéel laj ko la ñi ngir xéewal yu bëri léegi nag mbokk moomu nag gis loolu nag te sañ Maxtaar Bintu Lo mi ngi seen biir jataay bi mu ne murid yi day ñoom euh, ñoom seen njëriñal ëllëg maanaam lañ nar a fayeeku ëllëg far nañ ko lekk fii ci àddina daal di jël aay boo xam ne aay bi sax yéefari lay wax azabtum tayibaatukum fi hayaatikum dunia wastamtahtum biha fal yawma tujzawna boobu mu ne moo nga xam ne yàlla yéefari la ciy waxal na leen ñoom day seen xéwal yi ñu waroon amal sax lekk nañ ko fii ci àddina ba àggeel mu ne nag murid yi ñoom tim loolu moo leen dal léegi bi mu ñëwee nag sëñ bi ci gàttal euh, sëñ bi laaj na ko laaj ko na ko ndax amul ñoo taseel ba mu yàgg xel mi daj lañ ko waxoon mu nettali ko loolu sëñ bi na ko xoolal ci kaamil yee kaamil boo ci jël boo ko ubbee fu sa nag a bët di tego rek loolu mooy suñ mbir sëñ bind Bintaloo bi mu jëlee kaamil bi mu ubbi rek dafa dafa tomb ci aaya bi allazina amanu bi ayatina wa kaanu muslimina udduxulul jannata antum wa aswaajukum tuubaroon xam nga gis nga tomb ji <laughs> macha allah noonu la ko defee gis nga eh, yaa ngi fàttali ba tey eh, ku mel ni ku mel ni maam maam Seex borom gaawaan bi sëñ bi bëggee ñibbisi te seet ngan gu mag gi fan la ko war a defee daanaka def na gay kaamil bi rek yem ci walaaw yuddu ila daari salaam wa yadi man isaw ila siraat mustaqiim kon loolu day wane ne alquran ji ni ko ni ko yàlla defee ak ni mu dëppoog ni dëppoog bëgg-bëgg sëriñ bi waaye sëriñ bi gannaaw ci loolu ci wàllu bindulu dégg nga sëñ Moussa Ka ko wooyee gànnaar di bind di ko jox Saalum di bind di ko yët Jolof di bind di ko yët maanaam fenn fu nekk di bind di ko yët li yéemi ci sëriñ bi nag mooy li ko daan bindal alxuraan niñ bëree ci mag ñi xam nga diggante sëñ Modou Euh, Cheikh Mamadou Fadal ak ñeneen mag ñi kenn ku ci nekk rek lim ko bindal ci kaamil da nga naan waaw kaamil yi lan la koy doyee waaye kon loolu dafay wan rek maanaam doon gi mu doon alxuraan waaye sëñ Saliou moom yëmut foofu ak ni ko daan binduloo ki ni mu ko daan binduloo waaye nag ni ko daan jënduloo Cheikh Mamadou Lamine Diop dagg na nettali na ci njaareem nee na ci njaareem sëñ bi am na ci benn jataay boo xam ne lu mat maanaam juróom-ñetti téeméeri kaamil def naa ne su ma ci lim bi jëndalu ko fa fay ko ci saasi kon loolu li muy tegtale kon yaakaar na sëñ Saliou <laughs> ba pare nag mu jël alxuraan lu jafe mu jël alxuraan defoon ko muy wirdaam muy wirdaam alxuraan defoon ko muy wirdu wirdu woo xam ne defoon na ko muy wirdaam loolu loolu tim sëñ bi moo ko mas a def te itam bi mu nekkee njaareem tim mm, tabaski bu daan jot da daan jël da daan mas am na tabaski goo xam ne dafa jël ay xar yu bari nan nañ ko joxol maanaam ñi nga xam ne ñooy njaboot gi. waaju ji mel ni am na bi gaaj rek daal di jël jël jël jël alal ji rek séddale maanaam xar yi séddale ko mbàkki mbàkki yi waaye bi mu ñëwee sëñ bi daf na ko ba mu ko laajee ñan la ko séddale mu wax ko sëñ bi ne ko dey bu ma nee mbokk yi mooy ñi ma nekkal ci alxuraan ji waaye moom lañ gis tim sëñ Saliou moom dong lañu gis waxtu yu juróom juróomi ca Sarsara la tàmbali ba ci Thiène Jolof ba tey ci njaareem waxtu yu julli juróom waxtu wu nu mu defal këpp kaamilu alxuraan ñu di ko jàngal loolu sëñ Tuubaa rek moo ko def kon ba pare def ci wirdul maaxoos sart la ci wirdul maaxoos ki mokkul alxuraan bis jot mu jàng ñaari isib ak genn wàll la yaakaar naa sëñ Saali sëñ Saali ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mën nañu ko wax defe naa ne kon sëñ Tuubaa ak alxuraan maanaam yaatu yaatu waay goo xam ne kenn mënu koo tënk kon xam naa ma dellu kàddu foofu donc jërëjëf. waa kay jërëjëf sëñ Nabi ci leeral yi nga xam ne leeral na ko te kenn ku nekk xam na ne li ab la ci li mu xam ci sëriñ Tuubaa ci ak alxuraanu karim ndax Serigne Touba day koo xam ne léppam alxuraan la kitaabu rabbi kaana li wa kuntu doxu bi sakkantu loolu nag dafa feeñ ci bii alxuraan da koo nekkal mu nekkal ko nekkal ga ko nekkal nag moo waral kon alxuraan mu moom ko moom goo xam ne gu gu gu wér la wax na di alxuraan lépp lu ñuy moomee moomee naa ko nee na moomee naa ko jox nañ ma ko addiya sarax nañ ma ko jënd naa ko nee na ñett bi dafa te ñett yooyu moo fi ak mooy lu ñu loo jënd wala luñ la may wala luñ la sarax nee na ñett yëpp nag yàlla def na def naa ko alxuraanu karim kon moo waral lii kon sëñ na bi e, gis nañ ci taarix wala ma mas nañoo dégg ci taarix koo xam ne bind na kaamil ci tolloog ñetti fan jàpp naa ne ci sëñ Tuubaa lañ ko mas a déggee loolu la muy tetal mooy bëggoon gi mu bëggoon alxuraan ak fonk gi ak moom gi mu ko mooman ci la doon wane nit ñi moom moom alxuraan ndax bu ñu seetloo alxuraanu karim bi mu ñëw ko ni ko waxee dañ ko daan fooyee ndax baranoo ñoo xam ne sax ni ko waxee ci gàdd gi am na ñoo xam ne ci gàddinaar yi ku mokkul alxuraan du la may soxna waaye ñooña ban ñëwee ci sëñ bi dañ koo jàmbat sëñ bi sëñ bi sol leen alxuraan ci mag ñi it bari na ñoo xam ne sëñ Tuubaa moo leen sol alxuraan kon li muy tegtale mooy moom alxuraan waaye li ci gën a kii mooy ci jamonoom lañ gis ak njabootam muy góor muy jigéen ñëpp mokkal alxuraan muy xool li tàmbale Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci Cheikh Mour Mouhamadul Moutada kenn ku nekk. mokkal nga alxuraan bind ci kaamil yu du jeex waaye li tombalee ci soxna Faat Ja ba ci soxna may Maymuna ñoom it kasaalik ñu ñëpp kenn ku nekk mokkal alxuraan man ko bu ca yeman mu doy waaye bu ñu xoolee ñi mu dëkkoo muy waa barsàq ñi ñoom ñëpp kenn ku nekk it da ngaa mën alxuraan kon loolu itam mooy moom gi mu ko moomoon kon loola firndee na ci kon ndax kon jaadu na ñun murid yi ni ñu jàppee alxuraan ni ñu ko jàppee léegi ndax suñ Tuubaa noonu la woon ndax gis nañ ne ñu bari alxuraan léegi lu néew lañ koy jàng gis nañu ñu bari it seenu njaboot taxawuñu ñu yemoon mokkal alxuraan te war a war leen a taxawu kon loolu loolu ndax jaaduwut kon comme sëñ Tuubaa nii la mel alxuraan moom ko te ñu yàkkal sëñ Tuubaa ndax kon jaaduwut koo xam ne yow mokkul alxuraan nga fexe ba sa njaboot mokkal alxuraan muy góor ak jigéen kon loolu jàpp naa war nga def ab jàngat ci nan lañ mën a taxawoo njaboot gi ci wàllu alxuraan ngir ñu roy sëñ Tuubaa comme sàkkoon na ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne ñoo koy jàngal alxuraanu karim kon ju jaadu ci ay ci ñun ñu sunu njaboot ñu taxaw a noonu donte mënuñoo sëñ Tuubaa ci bëgg alxuraan. waa jërëjëf sëñ saaliw xam nga alxuraan euh, li ci nekk ci njariñ doy na rek ci li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ndax boo gisee alxuraan bi yàlla waxee ni inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu laafisoon waaye dajaa teg na wala xad yasarna alxuraana li zikri alxuraan ñoo ko jàppandal ba nit ñi mën ko mokkal. ngir mu mën fee des léegi kon dañ cey déggee ne tey jii bu fekkoon ne dañoo bàyyi jàng alxuraan alxuraan daf jóge yonent bi alayhi salaatu ci jàng alxuraan mu ne man qara alquraana walam yuribuhu ukilillahu bi malakan yuktubloo bi kulli xarfin xasana wala asanatu bi asari amsaliya nee na alxuraan bul xam li muy firi jéemal rek di nab nabi neel baa siin miim rek nee na noonu nga koy def wala nga ne alif laam miim nee na saa yoo koy def noonu di ko jàngat noonu di jéem a ijji nee na suñ borom dalay day yónni malayka moo xam ne day ñëw nekk sa pegg ubbi sa carnet araf woo wax mu bindal ko aw yiw waa pare nag multiplier la ko par diis sëñ Tuubaa ne waa ay suma yu basmilul sabiya fi lawhin yuktub loolu alayhi wali walidayhi wali man yu allimahu baraatun mina naari sëñ Tuubaa nee na xale bi saa yuy demee di jàng alxuraan ba sëriñ ba oustaz sëñ bi naka neel baa mun a baa mun a ko neel siin mun siin sëñ Tuubaa nee na moom oustaz beeg xale beeg ndeyam ak baayam yëpp suñ borom danañ leen danañal na leen ci sawara kon alxuraan li ci nekk tey tim euh, sëñ bi mag bi ni mu ci wone ci fonk gi mu ko fonkoon ak ni mu ko daan jàngaloo loolu war na tax murid yi gën koo fonk boo seetloo sax tey ba tey ci jamono ji defe naa ne ci murid yi. maanaam quantité bi ñuy jàng ci alxuraan boo ko fekk boo ko seetloo doo ko doo ko fekk doo ko fekk fen fu dul ci murid yi boo xoolee Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu anhu xel kom ñu bëri dañuy jàppoon ne xel kom bés bërëb liggéeyukaay rek la waaye xoolal xel kom li mu daan génne ci ay ñu makkal alxuraan sëñ Saliou duñ jeex kon nag alxuraan moom day mbir moo xam ne maanaam murid bi da ko war a fonk lool gis nañ ne te alxuraan juju fonk gi ñu ko war a mën a fonk. ba war koy mën a taxaw dara waru koo mën a waral loolu mooy daare alxuraan yi mooy ñu fexe nag dimbale maanaam ñi nga xam ne ñooy jàngalekati alxuraan yi te yaakaar naa ne loolu euh, waa kër sëñ Touba naka jekk ni sëñ Touba daan terelee jàngkati alxuraan yi dafa naa ne loolu ba léegi ci njaboot gi ñu ngi koy def kon alxuraan fonk gi sëñ Touba fenkoon te boo demee ci masaalik dégg nga dafa wax ne waman araada alxurba min mawla fal yaqara alquraana laa yéen saaw képp koo xam ne dangaa bëgg a jege sa borom sëñ Tuubaa neen del jàng alxuraan waaye nag gis nga sax wax na ci sax nag boole ko li ñu tuddee tadabbur ci alxuraan maanaam di setantal alxuraanul karim ndax alxuraanul karim lim làmboo ci njariñ kenn mënu koo kenn mënu koo tënk doy na rek ci tadabbur boobu sëñ Abdourahmane Lo ñëpp xam nañ ko dafa am bis sëñ Basiru Mbàkke dem di ko ziyaare si na ko day xam naa ne day mel ni ndigal li la sëñ bi joxoon nga daan naafila kaamilu alxuraan bi ci ñaari ràkk ndax ba loolu day xanaa ne jamono yi dana xaw a diis yow mu na ko moo ne démb ci guddi gi laa ko mujj def na ko sax démb sax dafa am lu ma ci daal mooy dama doon def tadabbur mooy di xalaat ci alxuraan di setantal boo koy jàng nee na rakk bu njëkk bi bi ma commencé bàqara dem naa ba àgg maanaam mulk soog di xalaat na sëgguma nee mu sëgg bi mu déllusee la jógee te boobu daanaka ñetti isib moo ci des ñetti wala ñeenti isib moo ci des pour kaamil bi jeex mu dellusiwaat ci ñaareel rakk ba mu jógelee tabaarak ba ci suuf waaye sëñ Saliou xam nañ ne ci jamonoy sëñ Touba rek lañ gisoon ne ak mag ñi sëñ Touba defaroon ñoom lañu daan gis ñoo xam ne kaamil alxuraan bi lañ ko daan maanaam naafila Maam Mor Jaara téeméeri rakk la ko daan def sëñ Daaru Assane Ndiaye téeméeri rakk mag ñi ci des gi nga sëñ Daam Abdourahmane Lo ñaar rakk la ko daan séddale Euh, wax nañ ne euh, sëñ ma Yacine Oumy Dieng ñoom naka noonu ba ci sëñ ma Samba sëñ ma Samba fukki rakk ak ñaar la ko daan la kon loolu day wane ne maanaam naka jekk alxuraan moom ci yoonu murit téere la boo xam ne téere buñ fonk téere buñ wormaal waaye téere buñ buñ buñ buñ buñ buñ buñ teral waaye téere bu ñuy jàng kon nag loolee defe naa ne histoire mag ñu ñu war nañooy jàngal maanaam fi sëriñ bi tegoon alxuraan ak ñim ci yar ba tax na murit bu nekk. war ngay góorgóorlu ci njàngam alxuraan ndax day maanaam ndigalal sëriñ bi xam nga danga dégg am na fu muy wax ne Touba li abdin muridin saarixin lahumo bi xidmatin aw bi bin aw am na fu mu waxee Touba li abdin muridin lu Touba li abdin yaxbudullaha nu mu ko waxatee ca bayti ba foofu daal ci ci euh, damaa jàppatul bayti bi Touba li abdin Touba li abdin yaxbudullaha bi tartiiril quraani waaw noonu noonu la waxee daal foofu da day wax ne texe ñeel na euh, maanaam jaam bi nga xam ne mu ngi jàng alxuraan te di ko jàng jàngam tartiil kon xam naa sëñ Sall ñu delloo la kàddu gi moom asalaamaaleykum. ok jërëjëf sëñ bi eh, xam naa waxtu bi daf ñoo dab waaye liñ bëggoon rek am nañ ko ci mooy sëñ Touba ak alxuraan kon jàpp naa ne képp koo xam ne yaa ngi ñu topp euh, boo jógee fii da nga gën a fonk alxuraan loolu taxit bis bi yàlla def na sàkku nañ ci di ci bind alxuraan ba bind nañ ab kamil nii. ba topp ko ba suq ko defal ko jaafur ba dana ko jëbal sëriñ bi e, xaside it kasaalika moom it noonu lañ ko toppee bind ko bëgg ko jëbal sëriñ bi xam naa beneen xaaj bi ci des bu ñëwee da ñëw ci wàllu xaside yi ndax comme alxuraan la doon ubbee rek su ko fee wax nañ sëñ Tuubaa ni mu fonkee alxuraan ak njëriñ nekk ci alxuraan su ko fee kon dana laaj kon ñun ñëpp ñu àndandoo jéem a bëgg alxuraan ni ko sëñ Tuubaa bëgg woon waaye teral ko na nga xam ne na ko defal jël alxuraan ko ci kaw ab lal di ko wis al eh, laj ko lañ daawul tëdd ci kaw ak moom ndax warmaal gi ak tere gi ko teral kon loolu rek dana waral ñun ñu war a bëgg alxuraan war koo fonk kon xam naa ne dañuy wàcc foofu suñu kàddu rek. tuuba li abdin yabudullah bi tartil alquran yaqihil karba macha allah jërëjëf sëñ na bi xam naa kon dañuy wàcce foofu kàddu yi rek di sant baax sañ na bi di borom xam-xam boo xam ne wax dëgg yàlla eh, lim fi nekk rek mooy liggéey liggéeyal islam la sëñ Tuubaa wax rek lil Mustafa nawetu may joddadu inni ahmadu moom nag dafay yeesalaat diine ji moom it di yeesalaat yoonu suñ tubaab yi kon yàlla suñ borom yàggal la fi loolu te wéral la ba yéene ji am ci yoon wi suñ borom defal la ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ya malikal mulki ya man jal بك يا من جل أن خاد ارحم جميع الرحم